oui ok euh, mais tey sorti Ousmane Sonko bi est-ce que tamit euh, xawul bëri politique trop c'est-à-dire que. Hmm. ab premier ministre annoncé ne lu yàgg dara ñaar ñi jiite euh, commu conseil yooyu wala boog itam kuréel yooyu duñu fanaan ci seen kuréel yi ñu jiite. même foofu mu annoncé fa que ne assemblée nationale bi comme ni nga ko waxee question de temps la ay fan moo ko fi dese. Hmm. waaye itam ci foofu itam mu gën a waat comme ni mu ko yàgg defee que ne fii léegi fan dossiers yi dinañ ci jublu. est-ce que tamit loolu du xaw dem ba nga xamante ni maanaam fulla ak gëdd gi ñu waroon jox dossiers yi ak ñu yor dossiers yi politique bi xaw ko xaw ci xaw ci teel dugg. waaw xam nga et je pense que président dina ko def de la république moom je pense dina ko def. Mhm. Euh, moo moo joxoon ndigal corps de contrôle bi mel ni OFNAC. bu mhm. mel ni cour des comptes. bu mel nii euh, je pense que c'est ça OFNAC Cour des voilà mooy yooyu mu ne leen publier leen les rapports des cinq dernières années rapports yi nga xamante ni ñoo am ci at yi juróomi at yi mujj mm-hmm. mais juróomi at yooyu bu ñu publier rapports yi Sénégal yi waxtaan nañ fi pendant trois semaines non ñuy nga gis koo xamante ni nee na pour mu def formation c'est-à-dire que nit ku ne compté na mu ne dix kilos lay lekk. Mhm. dix kilos quoi benn nit ñu ne dix kilos ci ci séminaire bi. vingt quatre heures Mansour dix kilos. Mhm. ñu facturé ko. Mhm. yow est que mën nga lekk un kilo. loolu moom bisu rek laa xam ne mën donc loolu. loolu ah, wane nañ fay bisu laa xam ne mën na ko lekk. ah bon même bisu je pense pas. parce que un kilo boobu sëriñ bi boo ko toggee ah mais bëri na. dama jàpp ne daa xamul ceeb donc kooku ne dix kilos. léegi loolu boo loolu genre tappale yooyu noonu. genre yëfu mën na neef na yëfu maa tey. parce que mënul nekk sëñ bi. mënul nekk léegi nag loolu même bu fekkee nga ne une semaine sax xanaa loolu mën nañ poser débat sax mais chaque jour dix kilos quoi nit ki ration alimentaire parce que dañ koy former xawam fan. léegi kon kooku ñaata nga fay delloo ci transport donc loolu rapport yooyu ñoo fi génn. ma liir ko nga liir ko man nee naa la su ma la soo ñëwee sama kër ma woon la ordinateur bi ma woon la de deux cent rapports yoo xamante ni man dama ko dajale. ok des rapports de la cour des comptes. Mhm. des rapports de l'OFNAC des rapports de l'IGE yoo xamante ni gars yi ñu ko publier. Mhm. ñëpp di ko lire ma rapport cour des comptes ne Covid 19 bi presque chaque semaine dinaa xool benn page pour xool ma ne mais attends. yëraat ko mais gars yi lire des comptes man damaa ju wala lan la. Mhm. parce que dafa bëri ay njombe mu bëri yoo xam ne c'est des supposées infractions loolu nag c'est pas Thioune qui va déterminer mais plutôt la justice moo tax ma ne je pense de la République. le président de la République son excellence président <laughs> Bassirou Diomaye Faye j'espère j'espère que dina daganal ñu publier les rapport de l'IGE parce que soo gisee ñu ne fan yi di ñëw gars yi dinañ rendre compte te may fàttali ne rendre compte reddition de compte du singali principe la Okay. Principe de, dans ce qu'on appelle la gestion sobre. Principe là dans la transparence, de la, dans la gestion des derniers publics ou bien des affaires publiques. Mm -hmm. loolu principe la. principe boobu quand su ma la ko waxee boo demee ci code de transparence di nga ko fa fekk léegi nag loolu du débat léegi bu ñu publier les rapports des cours des comptes de de de de la l'inspection générale d'État pour ñu xam exactement les 17 les 70 entreprises mhm. ou bien structures de l'État ñu ñu ne. président en euh, jox na instruction IGE mu def ay mission d'audit dans au moins soixante-dix structures soixante-dix yooyu bu ñu defee mission d'audit am na am na rapport bi ni bind sénégalais yooyu buñ ko xoolee tey boo ci woowee diw te mu concerné ko kooku di sénégalais bi opinion bi du am comme quoi non dañuy singali diw ok tey ki nga xamante ni dañ ko ne yow Médina da ngaa créer ay quartiers yu bees mm-hmm. supposons waa jooju nekk fa chaque année mu créer benn quartier. Mhm. création de quartier dafay créer benn chef de quartier chef de quartier bu nee nga ne même bu fekkente ne fictivement la existé mais sur le terrain sur le sur dans la réalité des choses. Ouais. il y a pas de nouveau chef de quartier. parce que Médina les mêmes chefs de quartier ñoo nekk les mêmes chefs de quartier. Mhm. mais créer nga yeneen donc nga nga nga créer boo créer prox ndoll boo xamante ni xaalis day génn lay xaalis boobu génnee fan la dem. ça c'est de l'argent de l'État mhm. léegi nag loolu genre yooyu kooku boo ko yóbbee yoon nga ne ko kaay nga tontu si lii kooku man du ma taxaw sañu ma taxaw ne noo dañ ko singli parce que man damaa liir lu mu def léegi nag rapport de l' de l' inspection générale d' état boobu aussi président moom kese moo ko mën def mooy moom mooy bind décret pour déclassifier mhm. les rapports et quand il déclassifie ces rapports là moi et vous et les autres sénégalais auront accès justement à ces rapports pour ñu def ci lu ñu tuddee jàngat pour sénégalais bu ne xam la mu nekk ci biir rapport bi mhm. puisque nous sommes de ce qu'on appelle dans une logique de transparence a pas lieu de créer des zones d'ombre pour créer li nga xamante moom mooy suspicion d'acharnement wala tentative justement de liquider quelqu'un mais xamante ne képp kuñ topp dañuy xam ne li tax ñu topp la mooy dañoo njort ne dañoo dañoo gis ne si su liñ la dénkoon li mu waroon jaaree jaaree fa noonu yoon léegi kay wax ñu lii foo ko dugal. ok loolu si boobaa amul acharnement il a pas de liquidation il y a pas d'adversaire politique il y a quoi il tout simplement ce qu'on appelle la reddition des comptes que chacun réponde véritablement de ses actes qu'il a posés lorsqu'il a été. Mm. Euh, aux, aux manettes donc loolu pour moi warul compliqué. ok mais xawul a tiital li mu yegg moom Ousmane Sonko ba ne euh, am na ñu jot a génn sax daw moo tax ba léegi. yombal lañ leen daw gi cest dire que nag am na ñu commencé wax liste quatre personnes la cinq la euh, est-ce que loolu itam du tiital ñi nga xamante ni ñooy sénégale yi jàppoon ne seen alal war na mën a dellu si war en tant que premier ministre nga toog ne am na ñu jot daw. Euh, bu ñu bu ñu waxee Lat Diop ñun ñaar ñoo fi doon wax. te loolu lay waxaat. Mhm. ma ne réew dafa am lu ñuy organiser réew du koñ. man soo may teree dara wala nga xeeñ mu ko administration yoon daf ne. l'administration est écrite. moom la voilà da ngay bind. <laughs> da ngay bind mooy bu dee tere da nga ma koy notifier nga yëgal ma ko. xamal ma ne li nga bëgg a def de mënul nekk li tax mën nañ la wax lu tax. Mhm. des fois mën nañ la bana avancer lu tax mhm. selon les circonstances. Mhm. ma ne donc soit Lat Diop am na lum ñu waxul. mu préféré wax lu mu bëgg askan bi dégg ko walla ñi nga xamante ni tey ñoom bu fekkente ni moom loolu la wax te ñoom notifié nañ kon li tax mënuloo génn moom bu waxee lu mel nii ñooñu dana war a génn démentir ko. leeral ko parce que. ñaari version lañ ci amoon sax. voilà léegi parce que bu ñëwee ne. dama dem. Mhm. ñu récupérer sama passeport diplomatique. Mhm. ma lay xamal ne li ñu tuddee avantage ak privilège ministre. Mhm. dafa am li ñu tuddee c'est lié à la fonction de ministre. Ah maanaam li nga nekk ministre moo tax nga am ko léegi soo nekkatulee ministre mënuloo ko am supposons nga nekk ministre de la justice tey ñu nekk nga nekk ministre de la justice nga am passeport diplomatique si passeport diplomatique dañuy bind ministre de la justice du Sénégal ñu ancien wala actuel de parce que xam na ne yow la fonction bi tax ñu jox voilà xam na ne yow la léegi yàlla def ginnaaw suba ñu changé la mm-hmm. ñu def Fatim Dieng ministre de la justice mm-hmm. léegi lundi di topp ci changement bi. nga ne voyager avec nga bëgg a voyager avec ce même passeport mais doo jàll. Mm-hmm. parce que boo jàll dafay mel ni c' est le ministre de la justice du Sénégal qui voyage alors que ci ñaar dañ la changé. <laughs> léegi passeport boobu lu ñu ci war a def mooy. dañ koy confisquer. parce que tu n' es pas un ministre de la République. Mm-hmm. donc dañ koy confisquer mais boo ko confisquer tekkiwul na dañ lay tere génn réew mi confisquer mooy mën nga tukki de waaye du passeport bii. ci ngay demee léegi nag jëlal ordinaire bi. léegi bu fekkente da ngay indi ordinaire bi ñu ne la doo dem parce que man j'avais dit Lat Diop bu fekkente li muy wax nii dafa jàpp ne passeport diplomatique bi lañ moo tax ñu tere ko mu génn. Mhm. na xëy jëlaat même billet bi dem aéroport avec son passeport. Euh, mu dem am visa. am mu xool ndax dañ koy tere. Mhm. buñ ko teree après moom mu wax ñu exactement les réalités et moi j'avais dit je pense pas que vraiment dañ ko tere te notifié wuñ ko. te bu fekkee dañ ko tere notifié wuñ ko ma waxoon naa et je confirme si dañ ko tere mu génn réew mi sans ñu def ko notification loolu moom dañoo tooñ parce que nit ki boo ko teree mu génn ci réew mi mhm. da koy notifier les raisons pour lesquelles il ne peut pas sortir léegi nag boo ko notifié par écrit moom pour def pour def politique mën na bañ a wax li tax ñu tere ma ma mën na wax ne non bindaluñ ma dara dañ ma ne mënoo dugg rek après ma ñu ne ma après ñu téye ma quelques minutes ñu bàyyi ma ñibbi. Mhm. kooku mën na ko wax loolu nag boo ko waxee te waxuñ loolu c'est de mauvaise foi léegi su boobaa aussi l'autorité aéroportuaire. Mhm. moom moo war a génn wax. pour ne pas dire le ministre de l'intérieur parce que moom kese moom am sañ-sañ wax nit ki doo doo génn wala doo dugg donc ce ministre de l'intérieur avec service services de communication ñoom ñoo war a génn des fois euh, yenn question yi nga xamante ni dafay laaj sénégalais yi bañ a nekk si xi sàkk parce que l'opinion aussi loo ko mën a waxal bu déggee information dafay am appréciation personnelle bu muy am mm-hmm. léegi pour muy éviter noo xalaat naa ni jàpp naa ni kii ki ñu ki te war a wax ñu tuddee ko euh, la voix officielle de l'État ou bien du ministère yenn fee yi moom mooy génn recadré wax ne mbir bi de nii la demee tere nañ ko mu génn réew mi waaye bu ñu ko ko teree notifié nañ ko ko léegi nag moom lu mu wax ça n'engage que lui loolu sénégalais bi dafay comprendre maintenant nag je dis bien mhm. dans tous les états il y a ce euh, des mesures conservatoires mhm. mesures conservatoires mooy bu dee ci wàllum sécurité lu la ñu tuddee euh, des une approche préventive doo xaar bi mbir mi ñëw nga soog a agir parce que mhm. loolu da ngay nekk dans la réaction mais da nekk dans l' anticipation. léegi nag fii aussi loolu ñu tuddee le mesures conservatoires mooy dañu jëm ci reddition reddition des comptes te l'histoire jàngal na ñu bëri ne réew yi nga xam ne dañuy fay def reddition des comptes. Mhm. mun na am ñoo xam ne njort nañ ne ñoom xam nañ parce que man su ma defee dara. njaru ngay njoxt mën nga njoxt man def naa mhm. mais man leer na ma def naa wala def ma léegi man su ma leeree ne mhm. def naa te gaa yi ci man lañ jëm te su ñëwee ci man liñ may toppee mënuma ko justifier mën naa am problème mun naa teel a yoxosu léegi nag kooku bu pour mu bañ a teel a yoxosu état bi mën na jël ay mesures conservatoires ne désormais ñii nii mënuñ génn réew mi. Macky Sall ba mu ko bëggee dafa wax carrément mu bind mu bind liste ne diw. diw ak diw ak diw. tere nañ leen ñu génn réew mi ñu def ko ce qu'on appelle l'interdiction de sortie du territoire national. est-ce bi yéexu ñoo def loolu ñoom. ah peut-être euh, ah mën na nekk yéex. parce que aussi bu fekkente ni yéexuloon am na cinq ak 4 diggante 4 ak 5 gis nañ leen Dubaay gis nañ leen euh, am na fu mu wax Qatar xaw ma mm-hmm. Dubaay te ñoom gars yi Dubaay tamit neex na de non ah, Dubaay lañ mujjee dem c'est que. ñu ne la gis nañ leen Dubaay seet nañ leen feneen comme ay policier buy recherché c'est pas Interpol bu lay wër da lay capturer photo la fii pour mm-hmm. wan ne gis nañ ko lii la soloon ainsi gis nañ ko mu dugg ci hôtel tel mais loolu problème parce que tey état au Sénégal gis nga Karim Meïssa Wade bu ñuy wax ne dañ koy topp pour mu mu justifier li mu am. mais dafa jóge France ñëw ñëw Sénégal mais bu fekkee ne danga nga ko tëj. mais coobareem la accord. man je bien si j'aime si de mon pays. ok boobu ma nekkoon au service de l' état pendant des années su ma nguur su ma nguur su ma ko ñàkkee su ma génnee réew mi. ma dégg ne dañ ma soxla pour ma ñëw tontu ci ay question man damay jël sama avion wàcc dem aéro wàcc aéroport dem suma kër bu ñu ma joxee convocation ma dem wuyu suñ ma laajee am naa ci réponse ma tontu aw ma ci réponse ngeen xool lan ngeen di def. ok da ngeen may arrêté c'est vous façon man lépp luñ ma laaj ma tontu. koo xamante ne aussi dañ laa dénk nga jàpp ne yorin bi yorin bu sell la. Mm-hmm. amoo looy ragal amoo looy tiit. mais sëñ bi jarul ngay dem Dubaay jarul ngay dem Makka jarul ngay wut ñaan. mais mais ci yoon mënees na mënees na koo jëli ji indi ko ci bu amee dossier boo xamante ni jar na ko wala. par exemple je donne l'exemple. boo nekkoon France. Mhm. nga nekk France état wu Sénégal soxla la ñu soxla la justice bu Sénégal soxla la. Mhm. mën na la jëli mën na la indi réew mi force. ok parce que li xamul tax. France ak Sénégal dañoo signé en juin deux mille vingt deux entre ministre de la justice bu France ak bu Sénégal ñu sa une convention de coopération judiciaire coopération judiciaire mooy ñaari réew walla ay réew yoo xamante ni dañuy nangu ànd ci loolu pour ñoom ñu jàppalante. mën na am français def toj Sénégal ñu war ko tëj fii. état bu France ñaan Sénégal ne ci tuuru suñu coopération bi maa ngi lay ñaan nga jox ma sama citoyen mu tëdd kaso ci prison France loolu su boobaa la moo tudd extradition. ok extradition. Mhm. loolu parce que loolu mu lañ tënk loolu moo nekk lu ñu tuddee les clauses bu dee contrate loolu la. Mhm. engagement yi doon jël. Mhm. moo taxoon laay wër nekkoon mbitim réew jamono jooju. bu ñu jàllalee convention bi danoo commencé tiit danoo wàññi woon. bu ñu wàññiwuloon dañ leen di delloo. bu leen jàppee bu dee France la ñu nekk laa wax maanaam hmm. territoire français dañuy di jàpp indi leen parce que day fekk également justice bu Sénégal mooy bind demande d'extradition mooy bind indil ma sama citoyen bi parce que lu muy defalee ma vraiment euh, loolu dafay compromettre suñu sécurité hmm. wala dafa am lu ñu koy ne def na ko dañ koo soxla kon da koy indi wala doo nekk ci territoire boobu te gëm gëm naa ne entre indi la ak bañ a nekk ci territoire bi doo rëcc parce que bu fekkente nii da nga nekk France état bu France xam na ne yaa ngi Montpellier wala yaa ngi Monaco mu war la jàpp pour yóbbu la jox la. Sénégal mais bu la bàyyee nga rëcc mooy complicité la. mooy que ne yéen li ngeen sekk suñu coopération doxul et loolu mm-hmm. état dox ñu si. Mm-hmm. mais bu fekkee dañ la war a delloo dañ lay dugal ci avion yaa xam fooy rëccee waaye du réew mi dina la yóbbu ba ci avion bi jox la waa sécurité bu réew bi nga war a dem ñu dellu. ok duñ la boole ci avion commercial wala vol commercial dañ lay jël service yoo xamante ni. police moom lay nekk. wala état moo xam noo koy affrété mu yóbbu la donc loolu du problème bu ñu la waree jàpp bu fekkente ni France nga ne te am nañ coopération judiciaire bu fi ne changé gul xamoon nañ dañ koy soppi bu changé wul. Mhm. mooy que ni même boo nekkee France Sénégal am na mën na demande France ñu indi la. mais bu dee réew yoo xamante ni nag amuñu coopération judiciaire boobu mënuñ la indi. boo fa nekkee kenn du la indi. mais nag par exemple Sénégal waaw bis boo jumee nag. nga teg sa tànk. réew boo xamante ni Sénégal par exemple nga teg sa tànk Maroc sëñ bi euh, bu dee Maroc nga wàcc mais Sénégal ngay fanaan. ok parce lay jàpp parce que dafay am lu ñu tuddee au mandat d'arrêt international. nga pare déposé ko au niveau de l' Interpol boo fu ñëwee day signaler que diw lañ doon wër Sénégal fële jàpp nañ ko automatiquement dañuy woo autorité yu Sénégal ne leen waa ji yi ngeen doon wër mu ngi nii suñu aéroport léegi nag. ñu indi leen ko wala ngeen jël si ko ngeen décider. ok donc loolu mënoo rëcc. ñu woo man je préfère daal nga bañ a def. cek cek waaw waaw dañuy woo cek cek <laughs> man man nga bañ a def. mais à la eh, mais daw moom doxul. quatre quatre personnes yi euh, wala cinq yi amoo ci kenn kii kontaan nga. aw ma ci joxtuma ci kenn. ok maa ngi wër. Okay. parce que bu junjoon wax ne ñu gënoon puissant wala ñu gënoon nangam. parce que man gis ma gis mu tudd. Mame Mbaye Niang ci la bokk. ah bon. waay ah, rek gën xam naa xaw ma nag. maa ngi hmm. woon ci ndaje boo xamante ni. Hmm. ok ah d'accord ah, yow yaa ma junjal ok. waay kon xaama xool parce que. yàlla def na. kërëseel la xool. yàlla def na ci jeudi bi. ngay bañ visionné. waay ci doon la liste des. Hmm. des quatre éléments des quatre ko rek bàyyi ñu ko rek. <laughs> liste des quatre éléments joxe wu ma parce que de jeudi. yàlla def na jeudi maa ngi woon ci siège bi. bi ma fa nekkee waaw mm-hmm. ci bi ma fa demee si siège jeudi passé yàlla def na jaxasoo ak beaucoup d'anciens ministre parce que di yëg naa ba ci quatrième étage bi wàccandoo ak yenn ñenn ñi tonk mm-hmm. mais gis naa fa ñenn ñi ki ko wax gisuma ko. ok mais xaw ma ndax bokk na ci façon gisuma ko. ndax mu ngi ci réew mi wóoruma mais gëj naa ko gis. gis naa gëj naa dégg ay waxam. gëj naa dégg aussi. man même même ancien ministre de naa ko gis. ko waaw am na. non du neex du neex calcul. Ah. waaye nag mën naa la may fii ak samedi. ok ma góorgóorlu si. parce que bëgg nga xam ne yi dañuy gaaw a ci diffamation. te mbir bi daa sérieux mais. du secret. nee naa la fan yi yàggul. du yàgg dara. gars yi dinañ dem wuy ji dina am ñoo xamante ni dina defal mandat de mandat de. te mën na ci dem sax mandat de perquisition mandat de perquisition mooy. police ñëw sa kër xool ndax amuloo nëbb ci luñ lay lay toppee. bu dee crime la est-ce que nëbboo jaasi walla pistolet bu dee da ngay jaay drogue est-ce que dencoo fi ay join wala ay cornet mm-hmm. bu dee dañ lay toppee xaalis est-ce que sa kër amul ay mallette est-ce que gasoo su suuf dugal ci est-ce que est que que est-ce ce que amoo ay compte yoo xamante ñun xamuñ ko exe exe exe donc loolu réquisition marqué mandat de perquisition moo la ci mën a génnee mais nag loolu loolu yëpp c'est des étapes te su boobaa aussi mën nañ organiser ay commission rogatoire mm-hmm. mooy euh, tey Sénégal justice procureur moom may demander à que ay experts. parce que procureur mën na bañ a am compétence boobu euh, wàllum économie ak wàllum montant financier parce que am na ñoo xamante ni euh, ci wàllum laxas nëbb xaalis loolu rek mooy suñu liggéey. Mhm. tey boo leen joxee xaalis dina la nëbbal sa xaalis nëbb ko nëbb boo xamante ni paradis fiscaux yi ngay dégg loolu la mooy ñu am fii influence yu adduna bi yëpp ñu bëri. Mhm. am na joueurs yu bëri sax yu koy def. Mhm. am na ñoo xamante ni dañuy sàcc xaalis wala blanchir ko. yóbbu ko dénkaane ko foofu loolu mooy paradis fiscaux. lañ ko fay yóbbu nga xamante ni dina jafe lool ñu topp bi gis yoon ne ñu xam ne diw par exemple bu dee yaa ko moom mënoo jaar yoon wala dina jafe nga jaar yoon ba xam ne Mansour moo ko moom. ok léegi loolu ñoo lay fay. Mhm. pour protéger la sa sa sa sa kii boobu sa alal noonu. Mhm. léegi nag lu tere état yi aussi am nañu ay ingénierie financière ah, économique pour xool ndax diw du prête non wala est-ce que jaarale ko fi ainsi de suite moo taxoon. Euh, Karim Meïssa Wade demoon na ay banque Monaco compte yu mu amoon foofu noonu ñu wër ba wër Antoine Diome bokkoon na ci. Mhm. tukki na dem xool ah, dem na fii Dubaï ah, avec euh, di bi di Dubaï Port World euh, fu ne dugg nañ fa. maintenant également bu ci tolloo dina am walla mun na am ay commission rogatoire bu ñu joxtee ni diw alalam bii mu ngi ci banque bële France dañuy dem xool vérifier. avec euh, justement les autorités des, des dites banques pour xool est-ce que réellement il y a pas euh, des des des fonds yi nga xamante ni dañ leen rawale euh, jël génne leen réew mi yóbbu leen fa yi nga xamante yeneen réew pour denc ko pour nëbb seen jëf mais loolu ça c'est ça c'est ça ça ça ça se loo fi def dafay feeñ ok mais dafa mel ni ci ñi nga xamante ni ñooy régime bi ak si dañ doon xool nuñ rafetalee deru justice door a ci liggéey bi jàpp nga ne vis-à-vis maanaam askan bi dañ doon xoolee justice bët bi soppeeku na bon je sais pas parce que posé guñ benn acte par rapport à ça. bi mooy ma ne ma wax la justice bu Sénégal. boo ah. déggee ñu koy xas. oui daa fekk politique la. wala homme d'affaires. Mm-hmm. te lu ci ëpp politique la. donc puisque ma ne la posé guñ benn acte mooy maanaam defaguñ acte bu bi wane ne justice bi liñ ko doon. Euh, xarafee di ko mm-hmm. xara di ko di euh, sànni mm-hmm. euh, xarab plutôt di ko ŋàññi en ci wàllum politique mu concerne ay dossiers ju politico judiciaire dossier politico judiciaire amagul wala bu amee tamit amagul bu am doole bi bi bi nga xam ne da sukkandiku pour xool ne est-ce que li amoon daaw am amatul léegi nag dafa am benn parquet boo xamante ni benn kuréel bu tudd le parquet le pôle finance judiciaire parquet boobu nee naa la moom mooy si gëm naa ne moom mooy ñuy déglu di saytu parce que boobu yëfu xaalis moo ko tax a jóg te yëfu xaalis mooy da xool ñi nga xam ñoo yoroon réew mi nan la ñu yore woon alalu réew mi donc nag ñooñu maanaam day nekk seen première expérience quand je dis première expérience à la tête de ce parquet mhm. parquet bi dañ ko créé euh, bu ñu ko créé euh, da amaguloon membre yu ko composé mais ci 9 août bi passé président bu mu defee nomination chamboulée conseil supérieur de la magistrature ci la nommaale ñi nga xamante noonu les membres du parquet euh, du pôle financier et pôle financier il y a le parquet il y a le procureur il y a également ses substituts il y a la chambre d'accusation et mhm. donc ñoo ñi nga xamante ni tey dossier yii ñoo ñoo fi ne les concernant les réductions de comptes dina nekk une belle occasion pour ñoom si la ñu wone ñoom man mën naa la xamal aussi di la fàttali mooy ñooñu pôle financier yooyu day certes justice lañ jàng jàng droit waaye li tax ñu créer pole bi mooy dafa am benn touche particulière mooy nit ki mën nga nekk juriste nga bañ am notion ci économie nga bañ a xam ni ñuy doxee mais dina la ñooñu dañ leen di former ci mm. wàllum économie ba xam nu ñuy laxee xaalis waaw pour ñu xam ni ñuy laxee xaalis ak ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy defaree montage financier pour nga xam parce que bu dee da nga dem tribunal bu simple exemplifie bu fekkee ne dañoo am lu ñuy tuddee mbirum informatique ñoom amul ko informatique. Mhm. dañuy def dañuy demander koo xamante ni informaticien la ñu pour mu ñëw mu expliquer leen. parce que loolu domaine am la. Mhm. léegi magis ñii nii les magistrats les procureurs le parquet euh, le parquet le président du tribunal les assesseurs les greffiers maanaam ñi composé parquet bi. Mhm. dinañ leen former ci wàllum économie ci finance ba ñu xam. exactement. ñi nga xamante ni ñoom la ñuy topp. bu ñu tegee seen i pexe yow fekk xamal nañ la ne ndiw pour mën a la rawale xaalis. Mhm. buñ ko dénk ci mbir bi la ko mën a jàllale maanaam créer surfacturation euh, créer ay faux faux événements créer également ay séminaires. créer ay formations recruter diw euh, créer ay prête-noms et cetera loolu lañ lay xamal et su boobaa buñ la ko xamalee euh, kooku bu ñëwee nga war ko déglu wala nga war ko juger du wax lu la jaaxal parce que day fekk yow. jàngal nañ la tous ces tous tous ces secrets là et su booba dafay facilité sa liggéey pour éviter aussi di te condamner mm-hmm. wala di innocenter koo xamante ni def na wala deful. Mm-hmm. dinañ mucc ci pour yow def ko ba mu jeex économie du ci économie Sénégal du ci taxaw waaye itam li nga xamante ni moo di politique du ci dugg. bon politique du ci dugg njoxte naa ko parce que euh, ñi nga xamante ñoo fa nekk li tax ñu teg leen fa ñoo njoxte ñoom c'est des c'est des hommes de droit. Euh, c'est des professionnels de droit yi nga xamante ni danoo jot a prouver danoo jot a wone seen probité morale euh, certes le procureur Ibrahima Ndoye dama j'aime le citer bokkul ci parquet financier bi mais moom mooy le procureur de la République te bu mu jëlee fonction ci douze jours lay mat parce que lundi bi beneen bi la woon lañ ko tabb lañ ko installé donc buñ ko installé toogul di nelaw dafa am lu mu fa fekk mu war a continuer liggéey mm. boobu mm. dafa am lu mu war a préparer mu war ci dugal loxoom parquet bi si naka noonu bu mu commencé di doxal dépassé wul 10 jours la ci lay mat maanaam bu mu commencé ku nekk nekk sa biro nga xam ne fii mooy sa biro fii ngay liggéeyee mm-hmm. ak lii la ñuy xaar si yow voici le dossier loolu bu matee matul 10 jours ci lay toll bu dee tamit mat na donc loolu pour nga def ko nag il faut ñi fa nekk xam nañ lu sénégalais yi ak lu nu li ñuy xaar ci ñoom. Mm-hmm. lu ñuy xaar ci ñoom ñooy waxuñu bul bul bul bul acharné ci kenn. Mm-hmm. bul sosal kenn. bul waxal kenn lu mu waxul. Mm-hmm. bul defal bul forcer nit mu def lu mu deful. waaye nit nag lépp lu mu def wax ko yaa ko def bu dee dañ la war a daan deux jours ñu doj la deux jours. bu dañ la wax ne da na nga delloo nga dem ñibbi sa kër nga mu delloo ñibbi këram bu ñu waxee ne da ngay delloo pare des nga mu delloo des waaye nag bu fekkente ne nit ki nag laalewul. deful donte ñenn ñi jàpp nañ ne kii war na mën a tëdd ci kaso bu dee justice jàpp na deful dara. Mhm. sëriñ bi clameur publique boobu mënul impacter wala. warul di ma dina du impacter parce que warul influencer juge bi juge bi li nekk ci biti. Mhm. dara waru ko influencer. le pouvoir exécutif waru ko influencer. le le sëriñ bi. Mhm. waru ko influencer wala benn famille waru ko influencer daanaka nit kenn warul influencer justice nu muy doxee. moo tax donc maanaam des fois dañuy faral di wax le temps de la justice ne n'est pas le temps de l'opinion donc je pense que euh, lu ñuy xaar si ñoom ñoom xam nañ ko. Mhm. donc euh, dinañ def preuve de de de de d'impartialité. Okay. preuve de d'objectivité maanaam maanute bu doy mais aussi jaar yoon bu doy comme ça su boobaa Sénégalais yi ñu ngi gis di xool di observer. parce que fii nag loo fi def gars yi ñu ngi lay bàyyi xel et dañuy jël note. ok ñu jeexal ak euh, Cheikh Omar Diagne euh, doon koo xamante ni moom itam fan yi daanaka euh, bëri na loolu ay.